di rafetlu ah di sant yàlla nag subhanahu wa taala di julli suñu di julli ci yonentam alayhi wa salaam di wax ni liñ fi tax a daje tey lu rafet la ndax mooy bés bi nga xam ni réew mi moom na boppam bës boobu nag gis ngeen président la république lu mu ci wax dafa ne dañ doon aada wu di def défilé bi nga xam ni civil yi ak militaire yëpp ñoo doon ànd def défilé boobu tey nag yàlla def militaire yee défilé mais nag bés bi bësu soldats yi la dañu ne quatre avril soldats yi ak ndaw yi ko moom boo gisee soldats yi moom ko ñoom ñoo yore suñu kaaraange réew ba tax lu ñu wax rek ci wàllu kaaraange suñu xel ci ñoom lay dem ñu def défilé bu am solo te président nag nekk seen njiit en tant que chef suprême des armées mais mu nekk tam su xale yi xale yi nga xam ne dañ leen war a ñaax ni soldats yi mel ñoom it ñu jéem a mel noonu am jom am muñ. am kersa donc loolu yëpp day wane ni bés bi bés bu rëy la man nag en tant que ministre affaire étrangères ma rafetlu bés bi am fi tey ci suñu jàkkaarloog suñu kër gu rafet gi nga xam ne diplomate yee ko moom.